jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. canta ngërëm ñeel na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal ci bi ngi di ànd ak seen chaîne bile di fi teewloo xibaar dañuy àddu eh, ci lu ñeel nag wàllu rek parrainage bi conseil constitutionnel kon ñu ni eh, daal dinay valider rek kon candidature Bassirou Diomaye fay eh, lu jëm ci wàllu parrainage bi tey jile kon la xibaar bi daal di génn sax nag ay waxtu yu ñëw rek jëm kon conseil constitutionnel daal dinay fësal ci talaata gi juróom-ñeenti fan kon dossier bu ñeel wàllu parrainage kon Bassirou Diomaye Faye ñu ni loole kon mën na bokk ñu rekk daal di fësal wàllu candidature am ginnaaw ñaareelu nag tour bi nga xam ni kon tey jilee lañu doon saytu mbir mi te tey jilee kon lañu koy daal di dakkal